asalaamaaleykum ñu ngi nuyu auditeurs u Rewmi FM yi nga xamante ni ñoo taamu Rewmi FM Dakar 97.5 di ko déglu saa ne rawatina seen émission euh, sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 euh, heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak euh, ndey Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal avocat à la cour maître Cheikh Khoureychi Ba ñu daal di fas yéene waxtaanee ponk yoo xamante ni soxal na actualité bi affaire client bile di Guy Marius Sagna exil tamit euh, bu client bi di le journaliste Adama Gueye euh, bi nga xamante ni fan yi sax génne na ab euh, livre corps de contrôle yi nga xamante ni ñoo fi nekk di xeex wàllum daa ñu ko waxtaanee ak rapport cour des comptes yi ñu mujjee génne bu 2015 2016 ak 2017 nga xamante ni bi mu génnee dafa daal di épingler ay autorités yu bare bari ay DG ak ministre ñu gis nag lu ni mel bi mu amee njiitu réew mi nee dina teg ab commission ngir ñu càmbar euh, mbir moomu la daañu waxtaanee mbirum Pape Alé Niang moom mi sukkandiku euh, ci OFNAC ba génne ab euh, sax livre de tuddee ko scandale au cœur de la République mu jur coow lu bare bare coronavirus bi tamit gis ngeen coow li mu bare ak treize étudiants sénégalais yi bloqué foofulee ca Chine bëgg ñibbisi te mënul nekk insécurité be criminalité bi ak yeneen i ponk yu soxla actualité bi suñu invité di maître Cheikh Khoureychi Ba ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Euh, merci Ndeye Comba Moreau ñuy tamit bisimilah ngi lay ñu nuyu également di la gërëm di la sant ci émission bi di nuyu seen auditeurs yi. Mhm. Euh, waaw euh, nekk à votre disposition pour faire le tour euh, évidemment toutes ces questions yi nga lii moom. Mhm. takku na takku ba nga xam ni defe benn bu ci nekk rek. Mhm. du doy émission. donc euh, xanaa ñu jéem rek. voilà. ayca mi ngi noonu fi ñu njëkkee maître Cheikh Khoureyssi Ba di sa client bi di Guy Marius Sagna nga xamante ne moom tamit occupé na occupé na actualité bi parce que euh, bi ñu yokkee courant bi am na benn kuréel bu juddu di ñoo lànk ñoo bañ euh, ñu gis nag euh, Guy Marius Sagna fippu na dem ba ca les grilles du palais doon manifester ndax courant boobu la ñu daal di yokk fi ñu toll ni tëye nañ ko ña ñu jàppandoo woon ñu bari bàyyi nañ leen pratiquement moom rek moo fi des ñu rejeté demande de liberté provisoire lan ngay wax par rapport ak euh, fait boobu lay di Guy Marius Sagna mi ñu continuer téye ko ci euh, kaso bi. Euh, noo ko mën wooyee rek ci injustice rek ngay ngay trouver jaay doole kumba am ndey kumba amul ndey Guy Marius Sagna dafa mel ni waaw mooy kumba amul amul ndey. mbiru gi doy na waat trop. mais bu fet bien de préciser que dañu bokk ci collectif euh, bu tudd ñoo lànk mm-hmm. te dañuy xeex te li ñuy xeex du caaxaan li mm-hmm. ñuy xeex sujet bu am importance mu yokkum courant bi nga xam ni dafa doon problème mu yebaatee di problème mu naxee mbaay euh, ba pare di problème bu mën a mettre en question entre parenthèses avenir u Sénégal mm-hmm. waaw parce que fontu bi bare na yu bare war nañ leen pour poursuivre ci affaire u yokkute bi. ñan lañ war a pour euh, ñi ñi ñi nekk à l'origine courant bi ñu yokk. waaw parce que nekk na gravité bi nga xam ni. Hmm. crime la crime sax lañ ko mën wooyee. lu tax. bon parce que dafa doon li nga xam ni xam nga question de fond la. Hmm. moo tax foog nga xam ni ñoo lànk avant ñuy dox ci mbedd bi bañ ne dem nañ grille palais actuellement nii saisir nañu cour suprême ndax gravité question bi met ma soxna kan président consommateur. ak monsieur Amadou Gueye benn abonné mhm. def nañu ay procédure mhm. def nañ ko ay jàmbaar lañu euh, man maa ngi koy soutenir en tant qu'avocat ak maître Ibrahima Diawara ak maître Massokhna Kane mhm. euh, actuellement Cour suprême dañ ko saisir en annulation li ñu yokk électricité bi ñu ngi ko saisir aussi en référé suspension pour ñu annuler ba yokk bi suspendre ko au moins. Mhm. en attendant ñuy prononcer wu au fond. Mhm. donc mais, ah, est-ce ah. que loolu war na tax euh, comment dirais-je c'est vrai yokk bi euh, ñu bari ànduñ ci askan wi sax bëgguñ ko mais est-ce que war noonu tax sa client euh, Guy Marius Sagna dem song les grilles du pale mu nekk ab institution en tant que nag homme de loi xanaa. xam nga maître Cheikh Oureyssi Ba doo ñu wax ne c'est tout à fait normal. da ngeen di bàyyi. ay détails yooyu ay grilles yu pale grilles yu pale du du chaque jour nit ñi dem fa. pour des raisons diverses. Mm. bu ñu demee football sax ñu duma ñu dañuy dem Gris Palais te président moo leen di teeru. Mm-hmm. seen parti xale bu añ leen naqe dañuy dem ba Gris Palais ñoom def nañu fa lu fa gën a grand ndax escalier dañu gris ba ñu sànni fa grenade. Mm-hmm. donc Guy Marius sax ñeneen bu ñu am leen metti war nañu mën dem ba Gris Palais genre wu mur des lamentations la dem wax leen metti mm. affaire Gris Palais bi dañoo bëgg ngeen teg ko fële parce que. Mm. Euh, manipulation la. Mm-hmm. complot la bu dangereux te ci biir police la xewee. ndax commissaire central bi ñu fa teg bi ñu ko nommé ñu bare neexu leen ci hiérarchie police. Mm. ñoom ñoo organiser seen coup. Mm. foog ngeen xam loolu. ndax moom c'est un spécialiste peut-être euh, du plan de circulation autre chose parce que militaire de formation la. Mm-hmm. te policiers yi seen biir xam nga corps bi am nañu esprit nga xam ne xëy na policier dëgg la ñu bëgg fexe nañ daal def li ñuy def def benn dispositif extrêmement léger comme affaire u maintien de l'ordre la. Mm-hmm. bàyyi xale bi dem ba grille palais moom ci boppam ko piégé àgg na nu mu demee. ba ci procès verbal bi policier bi ñu entendre mu taxaw booru IPRES sant Sonko mais moom xam nga lu mu wax dafa ne Marius euh, moom kenn moo fa taxaw benn policier nu mu mënee taxaw IPRES pour euh, protéger les grilles du palais nga xam ni loolu wul maanaam lu ñaaw la loolu war nañ war nañ ko sax ruus a wax te yéen da ngeen war a bàyyi wax grille yu palais non dañ lay poser question. Oui, parce, que looloo tax mais waruñ ko bàyyi comment se fait-il ñu war ko bàyyi. parce que looloo tax ñu tëye ko ci kaso bi. maître Ba comment se fait-il nga ne duñ la wax. Euh, c'est euh, Guy Marius Sagna peut lim def dëppoowul ak yoon moo tax ñu tëye ko fi parce que explication yooyu. la ñu joxe quand même waaw bu ngeen tëyee rek ma expliquer. li mu la bëgg wax mooy ngir palais. Mm. ci bu dee dañuy bañ ko fa àgg kenn du fa àgg facilement. Mm-hmm. sauf peut-être marée humaine boobu ñëwoon après finale coupe d'Afrique bi ne dañuy dem sargal xale yi. ak peut-être euh, mouvement bi amoon na à l'époque février 94 mars Moustarchidine mais benn nit ànd ak euh, quatre cinq caméras journalistes yu nekk ci gànnaawam ñuy dem gris palais bu ñu leen bàyyi ñàgg ba ci gris palais ba waa palais ñooy mujj génn dugal ko ci biir palais bi. Mhm. war ngeen xam ni a euh, mhm. moom euh, il faut pas aussi ñuy joxe prétexte ni loolu moo tax ñu jàpp ko. Mhm. parce que loolu ku yaakaar. loolu mais man si yoon dama bëggoon nga wax ma maître Ba. Hmm. ci yoon en hmm. nga nekk yow l' de de Guy mais est Euh, yoon maye na wala constitution maye na yoon euh, nga ñëw rek marché dem dugg biir pale loolu laa bëgg xam ba xam maye na ko waa wala déet évidemment yoon maye na ko mm-hmm. parce que loolu loolu amul constitution maye na lu ëpp loolu amul mm-hmm. amul amul restriction mm-hmm. amul euh, li ñuy wax sanctuaire ci teritoire sénégalais te territoire bi soo jëlee superficie Sénégal cent deux cent un mille kilomètres carrés amul fenn fu ñu tere doomu aadama mu dem fa sauf nga dugg ci titre foncier jàmbur wala ci néegu jàmbur sans sa permission mais il faut ngeen comprendre parce que ci démocratie lañ ne grille palais du kenn moomu ko waajuru kenn moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk ku am lu la metti euh, tracé ko sa itinéraire dem pour def euh, manifestation ñoom manifestation dañoo dañuy bëgg a dem ba ci buntu Senelec def li ñuy def mm. joxe seen message préfet bi bañ ñu piégé leen ñoo ñu ne ñoom kon s'il le faut daañu dox ba Gris Palais ñu ne si c'est l'occasion ñu def li ñuy def mais en fait bu ñu discuter ci ay détails xam nga lan moo am solo soxna si bu ñuy wax léegi bàyyi nañ docteur Babacar Diop ainsi euh, Guy Marius euh, dugal ngeen ñaari yoon demande de liberté provisoire lan nga see wax waaw ba ba ba démba euh, mhm. le 6 de démba mhm. juge bi tontu nañu ci demande bi bañ na encore mhm. c'est vrai te du ñu continuer bêtement combat boobu daañ ko continuer ci beneen cadre yeneen anam comme ban cas yeneen anam non cour de justice CEDEAO mu ngi fi y a d'autres on se concerte daañu wax ak ñëpp ñu xam lu ñuy def parce que lii duñ ko bàyyi noonu mhm. parce que Guy Marius effectivement bàyyi nañu ñëpp ba mu des moom parce que Guy Marius mhm. yéen xëy na xamuleen luy Guy Marius mais ñoom xam nañ ko d'abord Guy Marius bu leen fàtte ni dañ ko jàpp placé ko en détention provisoire mu nekk ci instruction mhm. mais xam nga fu ñu ko yóbbu ñu ngi ko yóbbu camp condamnation spéciale pour des crimes spéciaux muy terrorisme car quartier de haute sécurité Liberté 6 foofu lañ ko dugal ça veut dire que moom ni ñu ragalee ñooñu moom noonu lañ ko ragale même niveau lañ ko teg ça veut dire moom son combat ce n'est même pas le combat du Sénégal mais combat beneen la bu Sénégal jël par procuration c'est c'est le personnage de Guy maris voilà. qui dérange donc pas affaire u ñoo lànk ainsi de du ñoo lànk gi Guy Marius bu bokk na ci activistes yi ñu gën a ràññee ñu ragal ko ñu ragal ko bu mm. frappe bu France dégage parce que Guy bu ñu koy dangay ngay xool bi cadre bi yeewu tey jii bu yeewoo hmm, dem SGBS jëli salaire am mm-hmm. banque française après mu jóge fa dem CFAO bàyyi na otoom ci garage bi 508 Peugeot marque française dem di récupérer oto jaar Auchan marque française fi provision. Mhm. après mu àgg këram wàccee bagage am jabar bi di buudee. Mhm. chéri lan la looy mer mu ne ko non fayoo canal horizon bi abonnement canal bi dagg nañ ko marque française mhm. ku defee mu def orange money woo doom ji nekk fële ISIA école française di ko dugalal ma cinquante mille orange moo ne sa yaay fay abonnement bi mu fayal ko yaayam abonnement bi mm. ñu jógee fa war a dem xew fële jaara euh, autoroute Sénac marque française def la plein auto bi total marque française sa économie yëpp France jël na ko ba pare mm. teg na ci loxo mm-hmm. bon ñu ñu mel ni Guy Marius di xeex loolu di dénoncer loolu ni Sénégal vraiment recolonisation bi elle est devenue totale fii dafa mel ni département français la mën nañu wax sa Dakar sur scène actuellement Sénégal sur scène. Mm-hmm. bon ñun ñuy xeex loolu ak li ñëw waxuma la euh, li ñu euh, jël suñu eau électricité téléphone jël leneen ak leneen yow activiste nga yow. ñun ñëpp activiste ñu ngi lay wooyee le plus activiste des avocats. dégg naa ñu ko avocat yëpp activiste lañu avocat bu xam sensu serment. Mm. activiste nga ñun mm. suñu action loolu la de activité yi. bare na nekk activiste de. non ku ci nekk sa manière activiste la. ku ci nekk yaa ngi nekk activiste sax au moins pour sa poche ñun ñëpp activiste lañu. Hmm. ba ci nguur gi. activiste lañu non mais yow activiste yooyu rek ngay ngay défendre. waaw mën naa am bu ñëw nga nga tëye ko. maître ba tamit. mën naa am parce que dañ may woo nag su yàggee ñu waaw waaw qu'est-ce qui se passe. non man du ma dugg dossier jàmbur te woowu ma bu ma hmm. wooyee. ma hmm. ma ma natt ko seen ndax mën naa ko jàppale ma jàppale ko il se trouve que combat bi ñuy xeex ñoo ko bokk ma ñu dem ci. ñu ñëwaat si beneen activiste euh, suñu naatangoo boobu le journaliste Adama Gaye moom tamit euh, gis nga tëye woon nañ ko fii bàyyi woon nañ ko fii moom sax nee na mer na ba génn réew mi génn sax benn livre euh, tuddee ko l'exil asile euh, je sais pas xam nga otage d'un état d'une euh, euh, prison sénégalaise aux pyramides d'Égypte yaa ngi dégg Adama gay yow sax nga def pré face bi yow yaa nekkoon avocat wala yow sax yaay avocat lan nga ñu mën a wax ci livre Adama Gaye boobu kooku tamit fi ñu toll nii moom nee na génn na réew mi gannaaw ba ñu ko tëjee nee na xañ ko ay àqam ak yelleefam ainsi de suite doxalinu réew mi tamit métti ko trop kaawu monsieur Adama Gueye Adama Gueye kaawu monsieur Adama Gueye mhm. euh, je pense que c'est une page fermée mhm. parce que jàppoon nañ ko ci anam yu xaw doy mhm. euh, ñu xeex ak suñu ay yeneen moroom yàlla def li gën mu génn donc actuellement génn bitim réew donc dossier bi dafa nekk euh, en liberté provisoire non mais mais li ci bees mooy génne na ab livre dafa génne livre effectivement bon pour man en tant que avocat. Mhm. bon non événement la. Mhm. livre bi en tant que. otage d'un état waaw mhm. en tant qu'ami laaj na ma ma def euh, préface bi. Euh, ma suggéré ko sax ñeneen am na ñeneen ñu mu tànnoon mais malheureusement délai yi dafa xawoon gàtt. da ci professeur Babacar Diop waroon na ko mën def. ndax am na benn moment ñoo boo ko nekk ci prison bi. bon man mu offrir ma possibilité ma def ko donc j'ai payé la la préface mhm. mais honnêtement voilà actuellement mu ngi bitim réew ah moom nee otage d'un état la waaw waaw loolu ça n'engage que lui hmm. loolu dafa exilé wu wala waaw apparemment bu jotee dana ñibbisi hmm. euh, fii Sénégal soxlawuñu ngay exilé parce ah, ba muy exilé xanaa jàppoo ca Eh, eh, non moo tax ma la. réew mi kenn ëppale wu ko fi de. waaw lool lool te xam na ko. xam na ko ci kër ci réew mi la dëkk. wala dafa ragal Macky mu daw génn. non kooku xam nga bu ragaloon defe naa du jaar parcours bi mu jaaree ba fi muy bind livre di ko kii je ne pense pas mais ah. loolu. du problème en tout cas dama bëgg a bind sa livre toog foofu. waaw mais livre bi livre bi c'est un xam nga livre kii la méthode la rek ah instrument la aussi ak. Euh, support la aussi waaw pour dénoncer ay mbir donc moom combat am noonu la koy continuer. Mhm. ci forme boobu c'est je pense que c'est une bonne chose. mais bala yàgg dina ñibbisi. Euh, incha allah bu xaw ma gën naa jokkoo ak moom mais yaakaar naa ni bu jotee dana ñibbisi pour au moins euh, pour promotion. ñu laaj la tamit yow yaa nekk avoca bu xalifa Sall sa sa sa client boobu ba mu génnee ba léegi askan wi dañuy laaj mais qu'est-ce qui se passe moom ko. politiquement dafa mel ni euh, Khalifa Sall n'existe plus. bon man ouais. Euh, dimension politique bi xaw ma ah, parce que mënuma ci sori yow soutenir oo Khalifa Sall côté politique wala bon su maa ngi koy dama dama nekkoon ci collectif avocat mi ko doon jàppale mhm. euh, ñu bokk lu bare peut-être même grande famille politique bi en tant qu'homme politique ñun ñëpp donc euh, actuellement cours bi mu jox au déru déroulement wu carrière politique bon je sais pas mënuma ci prononcé wu maa ngi constaté comme ñëpp ni mu ngi liggéey mu ngi liggéey. Mhm. Euh, mu ngi liggéey fii ak bitim réew. Mhm. Euh, am na am na place bu ko bu mu am ci politique bi fii. am na niveau aussi bu mu atteindre ak euh, coono bi mu jaar yëpp et je pense que loolu yàgg na. ci politique mais bi ñu ko jàppee yéen ay avocats am yéen a daan taxaw di wax wax ni lii c'est un procès politique. dañ ko def pour rey ko politiquement. moo tax ma poser la question boobu ne est-ce que tey jii loolu ngeen doon wax ni dañu jàpp xalifa Sall pour rey ko politiquement est-ce que kon. Euh, ñi ko doon def. atteindre seen objectif. non loolu voilà moo tax ma posé la question bi loolu loolu balaa nga koy mën xam. nga am instrument de mesure. man non askan wi ñoo may laaj. ana Khalifa da nga lay ne ñu patienté. parce que homme politique. Hmm. dooleem fu ñu koy xamee. du ci wax nekk ci rajo yi ci journaux yi di wax. Hmm. Euh, day ah, dooleem mooy prochain rendez-vous. non ci la bokk c'est incontestable. mais comme amuñu institut de sondage. Hmm. xamuñu kottu personnes yi fi muy yéeg ak ni muy wàccee. nañu dem ba ci kanam premier rendez-vous bi nga xam ne dañ ci la ñuy peese nit ñi mhm. ci la ñuy mën xam ndax moom ñi ko doon euh, sonnal ak lii ndax réussir nañu wala réussir ñu mhm. kooku en ce moment léegi kooku jarul jarul yaa xam euh, maître Cheikh Khoureychi Ba danañ la laaj ci indépendance de la de la justice est-ce que yow euh, tey jii boo doon natt justice sénégalaise lan nga ñuy wax justice sénégalaise am na indépendance amul indépendance est-ce que sénégalais yi nga xamante ni dem nañ ba amatuñ confiance ci suñu justice lan nga leen di wax exactement yow euh, ban analyse ngay def ci inde ci indépendance wala sax justice sénégalaise exactement. pour pour tënk ko benn kii mhm. dafay jafe trop trop trop trop. Mhm. parce que mënoo répondre ci benn phrase rek. Mhm. Euh, may justice dafa doon lu lu doy waar magistrat yi bari nañu ñu ngi liggéey. seen service public de l'État te état mission mooy rendre la justice. donc am nañ ñu ci liggéey matin di soir ñu ngi koy def ci anam yu yu yu métti ci condition yu métti mais ñu ngi liggéey mhm. mais face bu gën a visible peut-être ci justice mooy dafa am ay décision yi nga xam ne nit ñi partagé wuñ ko trop mhm. te war suñu partagé wul décision wala mu décision heurté leen c'est normal parce qu'on dit que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais donc sénégalais ñoo tax ñuy rendre justice ñoom ñooy fay juges yi war nañu am seen xalaat ci juges yi ñun ñu nekk ci biir aussi xam nañu condition yi justice ni ñu koy rendre yi ci bare yi visible daal am na cas yi parce que doo jël téeméeri cas yëpp baax na mais am na ci fukk yi nga xam ni baaxul. Mhm. par par loola kumba am ndey kumba amul ndey jaay doole la ñuy jaar loolu nekk loolu effectivement du du image bi Sénégal bëggoon ci justice. Mhm. te image boobu bu dee moom moo taxoon ñu respecté ñu sur le plan justice ci àdduna bi dafa dellu gannaaw trop trop trop trop trop. lan ngay wax sénégalais bi toog këram maître banaan Euh, suñu waxee justice nga ne ñu ne ax ah, justice daal amul ci bi ci bi réew wala buñ ne justice ñu ne ax ah, affaire bi euh, kumba am ndey kumba amul ndey bu ñu nee justice nga dégg sénégalais bi toog ci këram dana ne même ci biir kaso bi sax dafa mel ni dafa am yenn ñaari sénégal maanaam dañ ko xaaj maanaam ci biir justice sax ñoom dañu fa gis ni injustice moo fa daal di am euh, naka gisee lool ñu gis ni da ngay gis sax parfois dañuy jàpp benn peut-être sénégalais lambda amul suite ñu bàyyi ko ci kaso bi fàtte ko fii muy longue détention préventive yi nga xamante ni euh, tout le temps ñu ngi ciy wax di ko jàmbat nga gis ñu jàpp benn homme politique ku mel ni fa Sall euh, mu am euh, une dizaine wala sax vingt avocats yoo xamante ni ñoo koy défendre loolu tamit est-ce que sénégalais lambda bi toog këram moom dafay jàpp ni justice yi boppam amul parce que dafa am kumba am ndey kumba amul ndey dafa am dossier yoo xam ne taf-taf dañ ciy taxaw gérer ko fa kenn lijjantiwu leen. waaw vous posez beaucoup de problèmes aussi à la fois. la fois mais nit ñi li ñu war a xam mooy mm-hmm. service public justice. Mm-hmm. état bi xëy na amul moyens yu bare mais am na aide juridictionnelle maanaam ku ñu téye sa mboq. Mm-hmm. amoo avo loo fayee avocat tribunal am na benn bureau boo demee expliquer fa joxe kayit indigence daañu la utal avocat état bi fayal la ko. kooku nit ñi war nañ ko xam. mais xëy na nit ñi yooyu ñu bare aussi dañu am suñu réalité parce que gëmuñu avocat ñu bare mm. bu ñu amee problème ñu ngi préféré dem ci seetkat bi wala sëriñ bi uti ci yëngal béjjén yeeg yooyu te li ñu joxe ñooñu. ah nee na avocat yi dañoo que ñooñu ñooñu. am benn borom yooyu borom béjjén yooyu bu ñu amee problème ci avocat la dem ñoom dañuy jëlee avocat. Mm-hmm. voilà donc pour vous dire que affaire justice avocat moo ko yor mais c'est nit ñi aussi lu ñu gëm xëy mooy loolu ki jël ki am moyen jël dix avocats tant mieux pour lui mais ki amul moyen aussi. Mm. avocat yi am nañu ay association seen biir yu góorgóorlu di dem prison di jël nit ñi mm-hmm. ñu ngi xeex aussi pour que détention préventive yi nga wax ñu wàññi ko te loi bi waaw mais loi bi may na avant ñu leen di juger code yi am na bu ci nekk moyen pour ñu éviter loolu mais lan mooy expliquer bu ñu nee comme dossier Khalifa Sall gis nga niñ ko gaawantoo lijjanti ko te nga gis benn lool lan moo koy ah, waral nga gis cas yoo xam ñu ngi leen fàtte nga xam ne agenda politique la le le le cas de Karim Meïssa Wade et tout parce que xam nga ñooñu ñëpp dañ leen jàpp mhm. ñu amoon agenda politique d'abord pour liquider leen politiquement à la à la limite pour les tuer ñu rey leen politiquement te délai bi dafa gàttoon moo tax dañuy accélérer mbir mi loolu kay ñëw ci mën moom mhm. foofu nga xam ne moom yaa deux deux de de deux vitesses la mhm. am na nga xam ne ils prennent tout leur temps instruction cinq ans dix ans yaa xam teewuñu mhm. ñoom genre Khalifa Sall gis nga ñoom ils ont battu tous les records vraiment tous les records gis nañu lu ñu mësul gis te lu ñu dul fàtte jamais parce que kaaw surtout Khalifa dem nañu mais amul lu ñu gisul ci dossier boobu lépp lu ñu war a def ci droit def nañ ko mais lépp lu ñuy interdire ci justice procédure def nañ ko aussi te loolu tam ñun jàngat la pour ñun pour ëllëg mhm. juge yi seen bopp constaté nañu loolu avocat yi ba ci opinion publique bi donc ñu ngi koy jooy effectivement di ko méttitlu mais li nga war a xam mooy même ñi nekk ni sénégalais lambda yi nekk prison ñi ci bare mérité wu ñu nekk prison mhm. parce que am na ay garantie yi nga xam suñ ko respecté woon dañ leen di bàyyi liberté provisoire te ter àtte leen ba mu kii prison yi fees na inutilement te wax dëgg yàlla loolu du c'est pas di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal maître Cheikh Khoureychi Ba maître Cheikh Khoureychi Ba ñëpp d'accord nañ ni euh, xeex euh, wala sax ger ah ger dafay nasaxal réew maanaam koom-koom ger baaxul ci bépp anam nag euh, ba tax na gis nañ njiitu réew Sénégal c'est vrai fekkoon na fi ay kuréel yuy xeex wàllum ger mais moom dafa jëloon xeex wàllum ger Euh, def ko combat euh, gis nga bi mu ñëwee euh, yaa nag ak doole bi nga xamante ni sax peut-être joxoon na ko nag am na kuréel yu fi nekk di IGE Cour des comptes inci de suite ñoom ñëpp di xeex wàllum ger wala di xool ba xam ña ñu dénk alalu réew mi ak ñu ñu dénk yenn poste de responsabilité yi est-ce que ñu ngi koy doxal normalement waaw wala déet naka nga gisee corps de contrôle yi nga xamante ni actuellement ñoo nekk ci réew mi est-ce que yow ñooñu jàpp nga ni mën nañ xeex ger wala mën nañu lijjanti alalu réew mi est-ce que fañ ko war a dugal ñoo ngi ko fay dugal ainsi de suite yu fait que gis nañ rapport yu génne euh, bu Transparency International gis nañu à chaque fois bu génnee rapport da ngay gis ni euh, <laughs> Sénégal daal wàllum ger la ñu dese bari na loolu même bu fekkente ni am na kuréel yu fi nekk di euh, lijjanti mbir moomu le naka nga gisee déjà kuréel yi fi nekk di xeex wàllum guerre wala ni ñu yoree alalu askan wi kuréel yi ñu instrument la ñu ñuy def seen liggéey ni ñu ko war a def parce que xam nañu enquête enquête bi enquête yi ñuy def jafewul jafe na parce que entreprise ñu koy defee bare na ak te ñoom seen personnel xëy na réduit na mais leçon yi ñu ciy tiire ak conclusion yi wax dëgg yàlla rafet na parce que ñooy ñooy tax opinion publique xam yu bare yu xew mhm. bon mais man dam ci am kerse sax parce que boo gisee yi ñuy Euh, résultats yi ñuy génnee vraiment dafa dafay man saa yu génne dafa may feebar quoi. dafa may métti dafa may mm. métti trop te noonu lay méttee Sénégalais yi. parce que pour yow kuréel ci hmm? boppam baax na ñañ fa teg ñu ngi def seen liggéey. ñu ngi def li ñu mën ak conditions yi ñu koy defee. Hmm. aussi li ci des mooy jël seen responsabilité parce que ay magum jëm bu ñu liggéey ay weer ak ay at. Hmm. génn gis li ñuy liggéey c'est en pure perte kenn du leen faale ñi di leen nasaxal ñi di leen ñàkk fayda ñi di leen saaga te ay kilifa lañu ay jàmbaar lañu. ay enquêteurs yu mag lañu ñu ngi def liggéey bu bu baax a baax mais honnêtement pratiquement dañuy liggéey rek dossier bi ñu téye ko def ko meuble daal wala kayit bi nga xam ne xëy na dañ ci euh, def. gerte gisoon nañ fi affaire OFNAC ak Nafi Ngom kayita la oui oui <laughs> oui c'est tragique quoi mais je pense que nulul nulul te yàquwul aussi comme on dit. parce que li ñoom Nafi liggéey liggéey bu bu bu baax la historique. Mm. te er je pense que am na prescription c'est imprescriptible mm. kenn mënul øh, arrêter la mer avec ses bras comme on dit wala nga jël sa loxo rek def nii ne naaj bi du jóg tey ndax def naaj sama loxo loolu ay caaxaan la rek mm. ñoom li ñuy def euh, ci avéré yëpp parce que am na présomption d'innocence mais li ci avéré yëpp ñu def ñëpp di ko dund gis état dëkk bi parce que dëkk bi corruption guerre rek moo tax dëkk bi toll fu mu toll parce que mënoo nekk ci dëkk mu manqué de tout mm-hmm. am ñi nga xam ni mais kenn mënul wax ni lu ñu am ba ci institution yi nga xam ni dañ ko créer amu fi benn njëriñ mhm. budgétivore yàq xaalis alors qu'au même moment ay jigéen yi continuer di wasin di dee malade bi nga xam bu amul garab day dee nga gis xale yi di jàng ci ay abri provisoire c'est la misère partout nu ñu koy compenser ne dañuy yokk facture bu électricité yooyu pour baadoo lay fay ko mhm. loolu ñu ko fenn mhm. bon bu ñu la waxee nag guerre bi ci boppam li ci biir mais da ngay da ngay ruus daal waaw euh, nekk ñi ngi def seen rôle amul problème mais la problème moom mooy est-ce que euh, am na suite ci rapport yi nga xamante ni ñu ngi koy génne su ma déggee li nga wax. non du am suite parce que aussi gis nga. maanaam ñàkk suite bi. moom ngay déplorer. waaw loolu laay déplorer mais ñoom ñu ngi def seen liggéey. normalement ñu ngi ñu ngi def lu ñu mën encore que bon yaa a toujours des réserves qu'on peut porter ci seen euh, ci ci résultat bi. parce que mm-hmm. aussi man. magum jëmm su ma liggéeyee gis ni damay liggéey en pure perte. Mhm. Euh, ñu may fay xëy na lekkuma ribaal wax maa ngi liggéey mais je préfère man ma bàyyi quoi parce que du may liggéey dama bëgg mu ak njëriñ bi feeñ ci askan bi. Mhm. bu ma pointé le doigt sur kii jox naa ko mu tontu am na respecter le principe du contradictoire et tout préconiser ay poursuites. poursuivre ñu nit ki au nit ki pavaneem ñu lay saaga moom mboq mi mais nga bàyyi moo gën. tout euh, organisme de contrôle yooyu nit ñi dañu war a jël seen responsabilité mënoo xaar ñu dàq la yaay dàq sa bopp nga dem xam ni tu perds du temps xëy yooyu bu ñu ko defoon euh, ñoom ñu jël seen structure de contrôle def ci seen nit carrément parce que ñii duñu seen nit wax dëgg yàlla bu dee pour liggéey ak enquête rek mm-hmm. ils ont des pouvoirs étendus am nañu compétence bi mm-hmm. ñu ngi def dig seen liggéey normalement mm-hmm. mais mënuñu mais est-ce que ce n'est pas limité du euh, du est-ce que tamit mënuñu woon peut-être euh, ñoom ñu gën a am peut-être benn euh, pouvoir je sais pas boo xamante ni rapport yi suñ paree euh, ca table justice lay jëm au lieu que muy dem ci table président comme ça justice mën a def liggéey mais dans mm-hmm. tous les pays du monde rapport yooyu mm-hmm. ci ci décideur bi lay jaar président mm-hmm. président moo war a nekk fii nekk leader tëdd tëdd njaaxaanaay du mm-hmm. protéger kenn mm-hmm. sans état d'âme comme li mu waxoon bu njëkk ba voilà du protéger kenn c'est exactement ça donc euh, rapport foofu la war a jaar président aussi li mu war a def mu donc c'est tout à fait normal mais rapport de Cour des comptes génn fan ñu boole am ay autorité ñu ci épinglé ainsi de suite mu jur coow euh, comme ni nga ko waxee ñu jox ko njiitu réew mi ñu bari di wax ni ah fiñ ñu toll ni justice war na euh, saisir ci dossier yooyu ak autorité ñu ci tudd euh, gis ni tamit njiitu réew mi moom dafa tourné waat mu ne dafay teg ab commission pour ñu xoolaat rapportu cour de comptes yooyu gis nañ tamit ci discours fin d'année bi ko taskatu xabaar yi interpellé ci kaawu Cheikh Oumar Anne nekkoon fi directeur bu COUD centre des œuvres universitaires bu Dakar ne kooku euh, dañ ko épinglé woon ci ab rapport ci gestion euh, bu COUD ñu gis ni ñu bëri doon xaar peut-être ñu sanctionné ko wala yoon def liggéeyam comme c'était le cas peut-être entre guillemets avec euh, Khalifa Sall mais dañu gis ni c'est l'effet contraire parce que président Macky Sall daf ko jël def ko ministre de l'enseignement supérieur maanaam daf ko defal sax promotion ñu ñu poser ko question boobu ci discours fin d'année bi mais la mu tontu moom mooy Euh, rapport yi ça ne veut pas dire la ñu wax dëgg la. dëgg la c'est ça mhm, loolu lan nga ci wax rapport yi. la wax dëgg la wala dëgg ba moom mu def ko ministre de l'enseignement supérieur coow li bari na ba léegi euh, mbirum Cheikh Oumar Anne fayagul. waaw loolu loolu ñëpp ko déggandoo. Mhm. président moom mën nga reproche mën nga ko reprocher lu la neex. Mhm. Euh, ba mu des ni amul fula te lu mu bëgg a def da koy def. moom mu toll. sóoraalewul gars yi de li mu bëgg a def plan moom da koy def. plan de carrière mu am pour ñooñu. Mhm. da koy continuer moom moom xam <laughs> lu ko mën téye ci loolu. Mhm. bon vraiment nit ñi ñoo ci war a des quoi ñu tirer les conséquences mais moom logique am c'est là ci su foofu moom am na fulla kilifa la te mu ngi koy wane lu mu bëgg def lay def. Mhm. plan projet am lay def. question moom mooy est kon moom amatul confiance euh, ci rapport kuréel yooyu donc ñuy euh. laaj est-ce que kon kuréel yooyu am na <laughs> amati na sens. non non ku moom bu amatul confiance ci kuréel yi xam na. banaan dëgg la am du dëgg. xam na efficacité kuréel te xam na ñooñ caaxaan nañu xam na lépp. mais ñun li ñuy lu nit ki retenir xel loolu lay jëriñ aussi nga xam ni moom moo fa teg ñooñu pour ñu jàppale ko politiquement te ñu wut les moyens jàppale ko moom du la jox moyen mooy li nga fekk ci euh, liñ la jox mm-hmm. jumtuwaay bi jumtukaay bi ñu la jox société bi ñu la jox mm-hmm. fexeel ba débrouiller mm-hmm. nga nga politiquer moo tax mu nekk ni jusqu'à présent ci seen intervalle de temps bi ñu nekk comme ñoo yore nguur gi nañ dem mais li wóor moom xam na li ñuy rapport de contrôle la ñuy téye seen kii ay année tel téye rapport wu ñeenti at nga téye ko génnendoo yëpp benn yoon mais li ñu wax yëpp dëgg la bu ñiy saaga nit ñeeg yooyu nañu indi nañu bàyyi les concernés ñuy tontu waaye tontu bi du dem leen di yóbbu tribunal parce que tribunal boo xam ne yow am nga sa juge bi nga xam ne déjà préparé nga pour mu condamner xam nga yooyu fontoo nit mm-hmm. amul benn njëriñ dans tout ça nañu retenir rek que ñoom. Euh, ñoom ñoo yore doole bi yaakaar nañu donc doole bi doole yàlla la xeexee mm-hmm. que yàlla moom doole bi jox na leen ko ba abada mais que nañu continuer ci seen logique nañu continuer aussi yaakaar ni nit ñi mënuñu régler problème boobu parce que au-dessus de leur force on verra bien nu mu nu ñuy beneen beneen cas bu am tamit ci moment boobu ñuy coow rapport euh, yu yu bare yoo xamante ni ñu ngi ci nguur gi euh, suñu naatango boobu tamit di Pape Alé Niang génn beneen livre tuddee ko scandale Sénégal au cœur de la République moom sax ñu ngi koy coow di ko saaga ainsi de suite mu ne moom ci la mu inspiré wu mooy rapport OFNAC euh, euh, du temps de Nafi Ngom Keïta euh, bi nga xamante ni gis nañ ni fi jógee nee moom dafa ci loolu rek la sukkandiku bind livre am jox ko sénégalais pour ñu xam dëgg gi fu mu daal di féete moom inventé wul dara créé wul dara tuumaalul kenn dara naka gisee livre bu Pape Alé Niang scandale au cœur de la République ñu bari ñu ngi koy dal mu Euh, ci mouvance présidentielle bi. waaw maa ngi dégg euh, réaction yi euh, sorewuma ci parce que livre bi ba tey mënuma la wax nu mu mel suivre naa ci li ma mën suivre ci cérémonie lancement yi. Mhm. xam naa sujet bi mais liiraguma ko wax dëgg mhm. li ligne a ndaw liiraguma mhm. xam naa aussi contexte bi mu ko publier. dégg naa réaction yi bi ñu ne tubaab ko bind ak lu nekk yëpp maa ngi dégg kii mm-hmm. daf may mm-hmm. sax c'est mm-hmm. dérisoire quoi parce que li am solo du livre bi nii la fii la jaar ak fii mais li muy bindan est dëggal wala du dëgg ah ñooñ de neen dañ koy attaqué bon en attendant xëy na loolu daañu am temps lire livre bi mais yëpp dañ ciy am kersa buñ ko attaqué yow pare nga pour défendre euh, Pape Alé Niang su la sollicité. su ma sollicité ba pare ma gëm ni war naa ko mën défendre effectivement naa ko défendre avec plaisir. Hmm. <laughs> su dee Cheikh Oumar Anne mu ngi koy bëgg a attaqué depuis lors. waaw bon am na ci droit en tant que citoyen sénégalais bu mm-hmm. amee lu ko naqadi mm-hmm. aussi mu mu dem yóbbu ko justice maintenant nag c'est à savoir ndax euh, ndax dana gagné wala du gagné kooku beneen problème la képp ku am problème daal loo ressentir la naqadi mm-hmm. am nga droit seli dem dem saisir justice pour pour la kii mais nag ci cas bi mu nekk dafa yomb quoi ñu ñu dénk la mbir Euh, sa gestion xaw na doy waar daal. courbe bi waaw parce que vraiment étudiant moom dafa doon question centrale bi mooy étudiant yi. Mm-hmm. vraiment boo gisee gumba daal boo ko saraxul. boobu mooy bàyyi ko li mu jot a yàlwaan nga. bàyyi ko yow tey Cheikh Oumar su ñëwoon pour nga défendre ko doo doo nangu doo jël dossier défendre Cheikh Oumar. bon pour point mënuma tontu ci question bi. noonu ah, lu tax. d'abord mais avocat nga ku ah, nekk ah, mën na la solliciter. quand bu nekk ñëpp dañuy solliciter sax. am na yi nga xam ne mën nga koo défendre. mais ñun am nañu clause de conscience mais tey jii Cheikh Oumar Anne bu ñëwee saisir euh, maître Cheikh Khoureychi Ba pour mu défendre ko si dossier COUD bi euh, coow leeg euh, mauvaise gestion bi ñu koy tuumal pare nga pour défendre ko waaw wala déet peut-être peut-être peut-être hmm. peut-être hmm. mënuma wax de mën mën naa ko défendre wala mënuma ko défendre mais je ne l'écarte pas hmm. parce que li nga war a xam rôle avocat avocat par exemple yaa ngi ne avocat activiste man duma par exemple boo jëlee terroriste man du ma terrorisme bëgguma ko. Mhm. baaxul santul yàlla mais mën naa défendre terroriste du tere ni terroriste la viol bëgguma ko mën naa défendre ku ñuy accuser viol mais terewul da du ça pas dire que damay violé waaw parce que nit ki da ngay koy défendre mais sans épouser pour autant sa cause parce que avocat dañu ne ñii dañ ne mooy layandoo ci wolof layokat mais ñaleen dañ ne mooy farandoo mën nga ànd ak nit ki nga far ak moom défendre ko nga jël benn cause noble bu muy défendre une cause juste nga dugg ci moom ànd ak moom ngeen ngeen nekk coéquipier là c'est possible loolu la ñuy défendre xale yu mel ni Guy Marius ay euh, Kémi Séba ak ñeneen ak ñeneen ay chef d'état yu jàmbaar africaniste tout ça panafricaniste ay patriote souverainiste mën nga leen défendre parce que seen cause da nga ko gëm mën nga défendre keneen aussi taf sa bakken nii di défendre nit ki parce que ay principe la aussi nit la parce que mënoo toog tey jii Oumar Anne par exemple dama jël benn cas rek man xaw ma ko mënu mën à télévision mënu ma la wax nu mu mel. Mm-hmm. bu ñëpp daloon ci kaw kenn du ko défendre man de su man ma défendre ko. moo keneen parce que dafa am droit à la défense. même le diable a droit à la défense c'est Dieu seul qui n'a pas besoin d'avocat mm-hmm. mais le diable tax mu soxla avocat parce que avocat loolu mooy ndamu avocat war nga jóg nga défendre kooku. Hmm. même boo xamee nekkul ci dëgg. mais ñi fi nekk di toroxal dëkk bi nii. Hmm. ñu dem di leen mere trop bu ñu demoon suba ñuy dox ci seen àq ak seen yelleef di leen toroxal di nga gis ay avocats yu jóg jàppale leen. parce que ay est a que yooyu tamit xooluñ seen intérêt rek ak seen poche pas forcément pas forcément parce que parce man ku si demee ni kii comment dirais-je euh, maa ngi fàtte tur bi sax Euh, bu euh, section comment dirais-je droit de l'homme si boobu seen Assane Dioma Ndiaye plutôt moom dafa wax ni euh, ci ay principe moom am na ay façon nit yoo xam ni ñoom rek lay défendre am na façon nit yoo xam nee na moom luñ ko mënti fay ci xaalis du leen mës a défendre waaw côté boobu laa lay ah, laajee ah, waaw dëgg la loolu dëgg la am na ku nekk sa moom nee daal ci côté néew di doole rek moom lay féete ku nekk sa conscience vraiment loolu ku nekk mm-hmm. sa conscience mm-hmm. c'est c'est tout mm-hmm. kooku doon avocat warul déglu ba beneen avocat lii la wax noonu lay def déedéet. ku nekk dama lay wax ba xam yow am nga cas. ay type de personnes yoo xam ne yow ñoom ngay défendre. man waaw. Hmm, bon su ma hmm. gisee injustice am na. Hmm. tu es la victime d'une injustice sa cas naa ko jël. automatiquement waaw pour rétablir euh, l'équilibre su ma gisee aussi. que injustice bare na façon tu peux être victime d'une campagne de diabolisation terrible mhm. fekk ndeysaan parce que nit rek tout homme a droit à la défense mhm. su nit ku désespéré mhm. ñëpp bàyyi ko amul avocat mais kooku gàcce la pour avocat yi ñu bañ ko défendre su ñëwee ku mu dem rek nga parce que day am ngay gis ay nit ñu jàpp mais saa yi kenn du la déglu mais kooku bu ñëwee ci yow gis jaar naa fii ak fii ak fii je pense que daal yàlla mooy boole nit ñi parce que aussi koo war a défendre bul foog ni yow yaa ko défendre xëy yàlla moo la tànn pour nga défendre ko mission rek lañ fi nekkee en réalité. kon pare nga défendre Cheikh Oumar euh, ñu laaj la beneen maître. waxuma la loolu de soxna si. Mm. waxuma la ah, par li nga tontu leerul de. man su ma koy défendre tëb. waaw su ma ko doon défendre su ma ko doon défendre par exemple. Mm. Euh, par exemple koy tuumaal yëpp. Mm. man xëy ci point boobu du ko défendre. parce que Euh, défendre li nga xam ne man gëwuma ko. Mm-hmm. su ma gëmee nag ni deful liñ koy tuumaal man naa ci dem ba jeex mais su ma ci amee doute défense bi xëy na du ci point boobu. Mm-hmm. waaw man parce que ku nekk ak sa bàmmeel de doo def li nga dem pare man nga fenloo ma pour man ma koy layoo suba loolu du ma ko defal kenn. te maa ngi sant yàlla musuma ko defal doomu aadama du mu ko def. voilà maître Cheikh Khoureyssi Ba ñu wax ci beneen euh, fait boo xamante ni c'est important euh, parce que temps yëpp mooy occupé actualité bi di euh, man sax li may wax ni vrai terrorisme bi nga xamante ni sénégalais mi ngi koy dund moom mooy ñàkkum karange gi gis nga insécurité bi nga xamante ni moo am ci dëkk bi gis nga criminalité bi nga xamante ni léegi chaque jour dafay gën a yokk. Hmm. maanaam faat yi dafa bari. Euh, insécurité bi kenn foo ko natt weesu na ko cambriolage yi agression yi euh, euh, jeunes yi nga xamante ni ñu ngi ci yamba bi ñu ngi ci drogue bi ainsi de suite mu jur benn insécurité ak criminalité fii ci Sénégal boo xamante ni léegi on a l'impression même même de vivre vivre aux États-Unis d'Amérique lan ngay wax ci loolu lan moo ci sax solution laa lay laaj yan solution ngay joxe par rapport ak criminalité boobu di yokk ak insécurité bi xanaa xanaa arrêté ko rek. ci naka. arrêté ko et ce n'est pas au-dessus des forces de défense et de sécurité. Mhm. parce que ñiy def loolu as asaka lañu ci nombre nit waaw. Mhm. gis nga su ma bu xaw pas très pertinant mhm. mais ñi ci prison yi. prison boo dugg. di nga gis euh, ci junni nit junni prisonnier benn garde moo leen yor. ça veut mënoon nañu bu leen neexee ñu jóg. fippu ñoom ñëpp ñu génn dajji buntu prison yi génn na am ñaar wala ñett rek lay tiire rey leen ñi ci des dañu sauvé mais defuñu ko parce que am na administration pénitentiaire buy surveiller gardien gardien yi d' accord am nañu police am nañ gendarmerie mm-hmm. am nañu ay des euh, euh, parallèle mm-hmm. soxlawul sax jaar ci armée pour armée ñëw def mission de sécurisation du territoire mm-hmm. mais police ak gendarmerie bu ñu cumuler seen force ak seen xarañ ak seen service renseignement généraux yu ñu am yu bari à la racine mën nañu enrayer problème criminalité boobu c'est pas encore au-dessus de nos forces mhm. demul foofu mhm. surmédiatisation bi yëpp xëy na c'est pour endormir les Sénégalais mhm. pour ñu xalaat leneen waaw parce que au même moment il y a des crimes beaucoup plus graves qui sont perpétrés parce que crime économique moo gën a bon benn nit rey dañ ko fi benn kii parce que crime économique ay junni nit la ñuy rey chaque jour ñu ngi dee ñu ngi dee yokk yi ñuy yokk ci ambiance boobu il faut yooyu yëpp c'est pour ñu faire oublier ça di médiatiser ay rey nañu benn ndaw si fii yooyu yëpp métti na. ñu ngi koy ñu ngi koy parce que bakken bakken la. Mm. loolu dafa interpeller au plus haut niveau les ñoom ñoo war a régler problème boobu il ñu régler ko. su ñu ñu jóge fii bàyyi ñenn remplacer mais est-ce que amuñu problème éducation tamit Khoureychi. oui c'est-à-dire problème éducation. pour mais mais rey dafa yomb maanaam. Sénégalais waaw ñi def loolu. waaw ah mais dëgg la loolu rey yomb ko woon mais suñ demee ba maanaam oui mais il faut ñu comprendre ni. neexoo ma sax nañ la ci dañu Sénégal bi muy neex ñun xëy na cinq millions Sénégalais la ñu wala six millions léegi on est seize de Sénégalais nit ñi xamoo sax fu ñu jógee dañuy multiplier wu rek dafa mel ni dañ ñu rax sax. askan yi day changé. Mm-hmm. dëkk day avancé aussi mais ci avancement bi comme processus bi euh, accompagnement bi baaxul y a problème d' éducation. Mm-hmm. parce que boo xoolee jeunes yi ak ak jeunes démb yi ak ñi nekk mag tey. mais lu ñu bokk ci sénégalais mooy carte d'identité bu ñu bokk ak passeport mais réaction yi du benn comportement yi du benn bëgg-bëgg yi du benn mhm. moyen d'expression de la violence du benn avant da nga daan mer ci batu wala nga mer saaga léegi da ngay mer wala nga bëgg dara jël paaka dem rey nit ki mhm. pour portable buy jaar dix mille francs jaral nga jël bakkenu nit ki mhm. voilà donc vraiment il y a un problème mais à la source war nañ ko mën régler loolu laay wax encore une fois d'abord ñooñu d'abord ñooñu war nañ leen mën jàpp dal seen la kaw. Mhm. lu mu gën a gaaw. am na ñuy wax peine de mort yow d'accord nga ci. bon peine de mort beneen affaire la. parce que mhm. man débat peine de mort. vraiment mhm. bëggoo ci dugg du ma ci sore quoi. parce que peine de mort je pense que am nañu instrument yu bare yu yu efficace ah pour. pour la répression par exemple meurtre yi nga xam ne amul werante jàpp nañu nit ki flagrant délit la mu reconnaître fii mais nañ ko atte atte bu gaaw mhm. nit ñi gis ni ki defoon ñaawteef sanctionné nañ ko sévèrement waaw sanctionné nañ ko sévèrement ba muy dee dootul génn kaso bi waxuma suba ñu koy gracier yooyu c'est hors de question mhm. suñ ko defee mën nañu arrêté nit ñi la criminalité la temps bi pratiquement jeex na ñu laaj la ci beneen dossier boo xamante ni commerce di yaay Fatou Mbaye euh, Diagne nekk chef service commercial ak faatu Diop Wade nekk chef euh, service affaires financières euh, ca APS DG bu APS Thierno Birahim Fall dañ ko convoqué demul yow yaay avocat waaw waaw lan nga ñuy wax lu tax mu dàq taskatu xabaar yooyu suspendre aussi Bamba Kassé bu Synpics waaw dama lay préciser d'abord ni ñaa ñooñu duñu ay journalistes ah. mm-hmm. ay chef ay serki rek lañu ay administrateur lañu mm-hmm. Euh, ñaari femmes yooyu c' est pas des journalistes. APS mais wax naa seen kii. waaw APS dañuy liggéey xam nga APS. Euh, mm-hmm. personnel chef euh, de service. mais personnel bi ñu bare ay administratif la ñu. Mm-hmm. ci administration bi du ñàkk sax dañuy cotiser def cotisation 2000 francs bu Synpics. mais mm-hmm. ça ne le donne pas pour autant la qualité de journaliste. voilà donc par extension mën nañu kii loolu donc c' est dans le cadre de ses attributions. directeur général bi dafa leen remplacer. bon bi leen remplacer. heureusement ñaari daam ñoo leen war a remplacer mais ñoom lu mosul am ci administration ñu bañ ne ñoom du ñu fa jógee. dañ leen war a remplacer. waaw non dañ leen décision yi génn na. waaw on les a limogés. on les a remplacés par deux dames. mais lu tax ñu dàq leen laa wax. dañ parce mais kooku le le directeur général n'a pas à s'expliquer. ah bon bon peut-être question rendement la question compétence mais en réalité am na dara ci suuf. bon ñu génn ñu dàq leen ñu ne noom du ñu dem ñu leen def leen passation de service ñu ne duñ fi def passation de service kenn du dugg seen bureau man personnellement jàpp naa ci ñuy patienté jigéen da nga koy suturaal ormal ko surtout mbir mi ci suuf. parce que li tax ñu dàq leen su da nga bëgg xam li tax ñu dàq leen. waaw y a des y a extrêmement graves. Mhm. yu am. mais bëgguñu leen dàq bëgguñu leen sanctionner parce que sa sanction bi di dàq de deniers publics parce que manipulation bi bare na ba ci organisation féminine dugg di wax xamuñu li xew. Mhm. c'est pas très joli à raconter. Mhm. finalement dàq nañ leen parce que bi ñu demee ba war a passer au moins ñu génn bureau yi ndax rétention documents yi mënatuloon continuer jël jumtukaay service yi téye ko nga bañ ko joxee Mm-hmm. ci service su état bi mais c'est incroyable li mësul am fenn ci Sénégal histoire du Sénégal mm-hmm. déggoon nañu une fois benn dame bu ñu génnee poste mu ne passation du service du mais dañu yàq dëkk bi dëkk bi su continuer nii fu ñu jëm mm-hmm. yow da ngay liggéey ñoom ñi ñu remplacé ñu ngi foofu ci APS bi ñu leen remplacé ñooñu dañu def passation de service ñuy gisante ak ñoom chaque jour tey di ñu génn leen ñoo duñ fi jógee bon ñu dégg yu bare boo en tout cas ñu di dem di dem ba léegi du dem ci télé yi ci rajo yi di wax léegi bi huissier ñëwee pour constater ni ñu ngi leen di remplacer vidéo yi ñu ngi koy gis léegi ñu saaga ndey ñuy saaga directeur général bi dóor nit ñi ba ci huissier bi weq nañ ko gaañ ko yooyu muy def affaire yu doy waar. Mm-hmm. ba pare ñoom seen bopp dem defi plainte que dañ leen dóor mm-hmm. alors que film yi day wane le contraire ñoom ñoo dóore ba pare nag plainte bi aussi ñuy kilifa bu mel ni directeur général. bu tax demul nag mais dañ ko nommé d' abord par décret présidentiel. Mm-hmm. deuxièmement mbir bi ñu koy toppee c'est dans mhm. le cadre de l'exécution de sa mission de service public dans le locaux de son service mhm. muy dem mhm. donc aussi il faut que nit ñi benn point loolu détail bu ndaw la rek xam nga léegi nit ñi dañu tàmm booy def plainte da koy yóbbu directement police wala gendarmerie ñoom seen réflexe aussi police ak gendarmerie il ñu saluer leen parce que dañuy bañ ñu ne ah dañu protéger diw dañu protéger diw booy indee plainte ak euh, euh, euh, certificat médical parce que dañ ne moins de jours plus de jours ñu ne ah kon nañu woo nit ki parce que sinon genre affaire journaliste dañuy ne dañuy protéger. Mhm. donc moo tax ñu woo ko mais plainte bu jaarul ci procureur procureur de la république kilifa la bu amee plainte contre un directeur général étudier ko xool ni ci biir service lañ koy reprocher ay mbir réflexe mooy mu wax ko procureur général. procureur général réflexe mooy mu wax ministre de la justice ki jël décret ba nommé directeur général bi mu wax ko donc c' est comme ça loolu suñ jaaroon ci procédure boobu xam nga ni lii du am yu ñàkk fayda la mhm. day fragiliser état c' pas bon mhm. donc directeur général bi euh, euh, de la justice militaire bind président de la république bind autorité yi ngeen ci anam yi ñu ma convoqué mhm. su ngeen ma mayee permission parce que déposition simple déposition soo bëggee kii defal la ko euh, ministre pour mu dem da ngay jaar ci premier ministre. wala secrétaire général du hmm. gouvernement. jeex na ñu bàyyi la donc ñu rappale leen procédure bi. Hmm. ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw naa la su sujet yi dañu bare que <laughs> voilà. du ñu mais pratiquement <laughs> laal nañ lépp. <laughs> waaw macha allah je pense je pense quoi. Hmm. ñu di leen gërëm di leen sant ci waxtaan bi gàtt na mais bon. da ngeen di yokk émission bi tuuti. à une heure de temps la waaw deux heures de temps sax xëy na moom mooy xaw tane. <laughs> Mhm. ba pare wàññi euh, dangaru question yi. Mhm. ah di ñaanal suñu réew mi nag parce que réew mi moom soxla na avocat bu timide nga de. gis nga ko de ah. <laughs> voilà ñu koy remercier bu baax a baax ki lay euh, di maître Cheikh Khoureychi Ba nekk avocat à la cour euh, di ko remercier bu baax a baax ci disponibilité Euh, di leen remercier tamit yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun euh, chaque samedi de 10 heures à 11 heures di remercier Mamadou Diaw Diallo euh, ci wàllum technique bi di remercier également Léon Paul ci wàllum réalisation bi Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain ci beneen émission beneen thème ak beneen invité émission bi tamit mën ngeen ko dégluwaat à partir suñu site internet www.rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube di Rewmi officiel comme ça di ngeen mën a foofu kon ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf